baax na booy bu dem booy bu baax booy bu nekk fekk États-Unis maa ko fekk États-Unis di moom bu dégg ba ci barki Serigne Salim Mbacke may ñibbi si yóbbu ko mu jékki-jékki kenn woo ma Sénégal fii téléphone ne ma ne ma euh, Ramadane moom boole ak yow billaahi wala ma xool sama téléphone muy xaar af ma woo mu ne ma sama garanga ba ngay ñibbi da nga war a tàggu da nga war a tàggu ñoo leen koy jaale yéen ñëpp ñoo leen koy jaale waa parcelle yéen ñëpp yàlla ñu sax yàlla ko yàlla xaare àjjana yàlla ko yàlla xaar yéen ñu fi yàlla bàyyi yàlla fi yàlla yàggal ngeen nekk fi di ko ñaanal amin voilà yow jotal même nga yow ama problème nit ñi ñooñu jaxase la yow suma rak nga yow kenn mënu ma loolu du ma la dugg te ñàkk yow amay tooñ lay lëkk yow teg si defal nga ma fi tranga defal nga ma fi tranga defal nga ma fi tranga te man du ma fàtte man du ma sakk jëf lu ma la wax ma tey wax la sama rak nga sama frère am droit bi may bëri xaar 2007 loo ma waxul amul loolu dara sama rak nga keneen du la wax li wax keneen du la wax yow كنن تيمول تاخو دي واخ يني فوالا من ماكو نيمي واخ مالاكوي واخ وا يولا جالا بوي بو باخا باخ يو نك يو خاربي سي كاو سي تانم جيرو جيف جالا شامبيون